mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax dudd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a lu moo xam dëkkuwaay villa gan ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xar kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar Cité Port Kenok Juma Masalikal Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg salaatu lazi fi kun li saarin wa fi safar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 wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di dellusi di àndaat ak yéen ci sunu jotaayu xam-xam yi ñuy séq séq ak yéen di fàttalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu tolloon ci téereem bi nga xam ne moo tudd Munawwiru Sudur ñu ko doon jàngatandoo ak yéen ba toll ci bunt bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiallahu anhu di leeral bàkkaar yi nga xam ne dafa doon bàkkaar yu màgg yoo xam ne jullit bi war naa moytu di ca tàbbi mu mel ni tàmbali woon nañ buntu boobu ba suñu bind bi mujj ñi ngi taxawoon fi nga xam ne fi la sëriñ bi radiyallahu anhu doon leerale lenn ci bàkkaar yi nga xam ne gémmiñ moo ko jagoo ba tuddoon ci lu mel ni euh, jëw wala rambaaj wala lekk riba wala naan am ñollu yooyu yëpp bokk na ci ay bàkkaar yoo xam ne gémmiñ mooy li nga xam ne moom moo ko jagoo di ko def te mu bokk ci bàkkaar yu màgg yi nga xam ne jullit bi war na ko moytandiku bu baax a baax a baax a baax kon ci suñu bind bu weesu ci foofu la ñu taxawoon te it jàngatoon nan ko ak yéen waaye defoon nañ ci ag leeral gu yaatoo kon suñu bindu tey day continuer rek fi nga xam ne foofu la ñu taxawoon euh, sëriñ bi di wax ba tey ne ka am amwaalil yatimi ni ki lekk alali jirim wal yamini ak ngiñ ay gi ci jublu alxamuusi mooy gay nuural boroom ci ay bàkkaar waxiya te yooyu nag xaa un juróom-ñett la laa naruma nee na bokk na ci bàkkaar yu màgg yi nga xam ne gémmiñ daf koy def wala ci gémmiñ la ko la doomu aadama bi di jaare ba mën def bàkkaar boobu mooy lu mel ni lekk alali jirim lekk alali jirim jirim nag bu ñu ko waxee mooy koo xam ne way juróom bu góor daf fee bàyyi dafa faatu te moom majeur gut kooku moo di jirim kooku su ko fi waajuram bàyyilee alal euh, lekk alal jooja bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne moo gën a màgg bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg yoo xam ne ab jullit war na ko moytandiku bu baax a baax baax a baax ndax euh, suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñuy moytandiku loo loolu di ñu wax ci alquranul karim ne innal lazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naaran wa sayaslawna sa'ira ñi nga xam ne ñooy jël alali jirim yi di ko lekk te teguñu ko ci jenn ak ju wóor teguñu ko ci fenn topp seen bànneexu bakkan rek moom moo leen ci dugal ba tax ñuy jël alali jirim di ko pasar pasare di ko yàq aka lekk aka bànneexoo nee na ñooñu nañu xam ne la dugal ci seen biir de mi ngi mel ni ñu jëloon sawara di ko ci dugal maanaam bakaar yi nga xam ne moom la leen di jural euh, la ñuy lekk day mel ni sawara la ñuy lekk tey it ñooña faw ñu jaari fa nga xam ne mooy sawara si tudd sawara saayir kon loolu lu ab jullit morom mooy tundiku la Euh, lu ab jullit war a bàyyi xel la xam ne suñu borom subhaanahu wa taala tëkkoo na ci bu baax a baax a baax a baax nga xam ne kon nit ki su fekkee ne dafa yor ab jirim koo xam ne baayam dafa faatu te majeur agut euh, mu yoral ko alal na fexey ba alal jooja mu ñoŋal ko waaye na fexey ba alal jooja bu ko dara yàq waaye na fexey ba sàmmal ko alal joojee waaye it bu ca mënee bañ a lekk mooy li nga xam ne moo gën ndax lii nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wax ci aaya bi nga xam ne nee na ñi nga xam ne ñooy lekk alali jiram te eh, alali jirim te ci tooñaange rek lañ ko teg teguñu ko fenn ci seen bànneexu bakkan rek lañ ko teg ci jàpp ne xale bi xale la rek du masa màggi ëllëg eh, rek foofu lañ ko teg nee na saa boo xamee ni nit kaa ngi def lu mel noonu eh, na xam ne la dugal ci biiram de mi ngi mel ni mu jël sawara di ko dugal ci biiram waaye koo kee di def loole na jàpp ci am xelam xam ci am xelam ne ëllëg yowmal xiyaam suñu borom subhanahu wa taala dina ko mbugale ci sawara sa xam ne mooy sawara saayir a ñu jële ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne e, yàlla dana dekkal e, aw nit ci seeni ba bàmmeel e, su bis penc ba léegi ñooñee nga xam ne ñoom la suñ borom subhanahu wa taala di dekkal su leen dekkalee nee na sawara day génne ca seen gémmiñ ya sawara day génne ca seen gémmiñ ya di euh, bërëx bërëx yi euh, di sawara su tàng-tàng sawara su mittee mittee mitti mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi bi nga xamee ne wax na loolu saxaaba yi dañ koo laaj ne ko ñooñu ñan la yow yonente bi yàlla bu tedd bi bi nga xamee ne laaj nan ko loolu moom yonent bi sallallahu alayhi mu daal di wax ne leen euh, alam an anna allaha taala yaqulu inna allazina yaakuluuna amwaalal yataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sayaslawna sa'ira kon aaya boobu la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngala ne leen euh, suñu borom subhanahu taala moom moo wax ne képp koo xam ne yaa ngi lekk alali jiram te tegoo ko ci jenn àq joo xam ne àq ju yàlla la jun ko war a teg nee na bu boobaa na nga xam ne yaa ngi dugal ci sa biir sawara kon looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi nga xam ne ñooy euh, euh, aw aw nit dinañ dekki ëllëg yowmal xiyaam seeni gémmiñ di tàkk seeni biir di génne sawara te loole lépp la la ko waral mooy euh, alali jirim yuñ doon lekk waaye àqi jirim yoo xam ne daanañ ko jël di ko def ci seen biir loolu moo ko moo ko waraloon euh, jirim nag doon loo xam ne euh, nit ki euh, su fekkee ne suñu borom subhanahu wa taala dafa dogal mu yore ko doon ku ñàkk bu boobaa man nañoo jàpp ne jëfandiku gi muy jëfandikoo ci alali jirim ji bu boobaa loola mën naa bañ a wàññee dara su fekkee ne da koy def rek kem aajo ji nga xam ne moom la ci amee Euh, lu ko mel ni moom ci wàllu boppam amut lu mu dunde wala amut lu mu dundale jirim yi ndax dafa ñàkk bu boobaa dana mën a sàkk ci alal ji di leen ci dundal waaye nag su fekkee ne sax dafa woomal ba man leen a dundal sax la gën mooy mu ñoŋal seen alal ñoom te fexey euh, dundal leen jaamu ci suñu borom subhanahu wa taala ba ñu màgg su ko defee mu jël alal ji nga xam ne moom la leen seen waajur wàccan jébbal leen ko waaye nag su yàlla dogalee mu doon koo xam ne dafa ñàkk ba mënu leen a dundal alal ji nga xam ne ñoom la fi seen waajur bàyyi mën na leen ciy dundal waaye moom ci wàllu boppam mën na ci dund waaye nag bu ciy dund na ko teg rek ci àq ju wér a wér waaye bu mu ko def ngir euh, puukarewu wala bu mu ko def ngir bëgg leen a yàqal waaye bu mu ko def ngir intérêt am waaye na ko def rek euh, kem kat euh, kem aajo ji nga xam ne moom la ci am waaye kem seen maslaha ñoom na ko def ngir euh, loola kon bu ko defee euh, ngir euh, intérêt boppam wala mu def ko ngir leneen bu boobaa loola ak araam mën na caa dugg kon la kem la nga xam ne moom la soxla woo moom la yitte woo rek ba man leen a aar ba man leen a sàmm man leen a toppatoo man leen a yar loola rek lañ koy may mu jël ko te bu boobaa loolee dañ koy jàpp ne dañ koy xiyaas wala ñu xayma ko jàppe ne ak fay la goo xam ne dañ ko koy euh, faye moom mi nga xam ne moo leen di euh, toppatoo kon euh, su fekkee ne nit ki dafa yor jirim ba pare di doxale noonu bu boobaa loole mën nañ ko ko jéggal waaye nag na ko def ci ak maandu ni koy defee ci ak maandu mooy kem la nga xam ne moom la soxla rek moom lay jëfandikoo waaye kem la nga xam ne moom la war a moom la jirim yi war a soxla ngir jëfandiku itam loola rek la leen di jox ñu jëfandikoo waaye nag su yàlla dogalee mu doon koo xam ne dafa woomal te man leen ko jéggal man leen a dundal ci alalam moom ci wàllu boppam na leen dundal ci alalam loola moo gën mu def ko mu di ak jaamu yàlla su ko defee saa boo xamee ne jirim yi dem nañ ba ràññee mu man leen a jox seen alal ñu man caa euh, yaxantu wala ñu man caa jariñu bu baax a baax a baax a baax moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne wa man kaana ganiyan falyastaafif wa man kaana faqiran falyakul bil maaruf képp koo xam ne oomal nga na nga jéggal euh, dépasse yooyu nga xam ne moom nga war a dépasse wala nga koy jël di ko dépassal ñi nga xam ne ñooy jërëm yi waaye képp koo xam ne nag da ngaa ñàkk ne na euh, man nga jël ci alal jooju jëfandiku ca waaye boo cee jëfandiku itam na nga ko teg Eh, ak daala mu di ak maandu nang ko tekki ak maandu bu baax a baax a baax a baax eh, mu doon loo xam ne alal yi jirim doonut loo xam ne rek eh, da koy jël teg di leen ko dundale di leen ko dundale ndax bu boobaa man naa jeex balaa ñoo màgg ñoom ci seen wàllu bopp ba mën koo jariñoo su ko kon foofa lay gën mooy nit ki su fekkee ne yàlla daf ko séddee mu yar ay jirim ñu wàccal ko alal buy jël ca alal ja rek te euh, du ca defaat bu boobaa loola mën naa waral alal gaaw a jeex ba tax nag bu boobaa kon lay gën mooy mu jël alal ja di ca yaxantu ngir mooy am lu cay mën a dolliku ngir li nga xam ne moo ciy jóge comme ay dépasse bu boobaa loolee du mën a feeñ waaye du mën a gàllankoor alal ji waaye du mën a tax alal ji jeex euh, loolu itam doon lu ama am solo loo xam ne euh, lu ñu war a bàyyi xel la Euh, mu bokkit ci bàkkaar yi nga xam ne euh, jullit bi war na ko moytandiku bu baax a baax a baax mooy di giñ te leer na leen li ngay giñ maanaam dara euh, wéru ci di giñ te wér na leen li ngay giñ dara wéru ci moom la ñuy tudde alyaminul xamuus alyaminul xamuus bu ñu ko waxee mooy giñ li nga xam ne boroom a koy giñ te xam na ne li muy giñ amut Euh, li tax ñu tudde ko al yaminul xamus nag dafa doon ay ngiñ yoo xam ne day tax boroom di nuur ci ay bakaar ci lenn ci boroom xam-xam yi ñu wax waaye itam am na ñeneen ñu wax ne day tax boroom ëllëg yowmal xiyaam suñu boroom subhanahu wa taala di ko nuural ci sawara waaye di ko naq ci biir sawara kon looloo tax ñu tudde ko al yaminul xamus moy ngiñ loo xam ne nit ki daf koy giñ waaye wér na ko ne moom li nga xam ne moom lay wax euh, du amut Euh, bokkut ak li nga xam ne moom mooy li wér moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di xadis ne man xallafa ala yaminin wa huwa fajirin wa huwa fajirun li yaqtatia biha mala mri'in muslimin laqiya allahu alayhi xadban képp koo xam ne ab bépp kàccoor boo xam ne giñ nga ngir euh, dogale alali jullit ngir dogale alali jullit wala ngir fexey noo def ba sànk alali jullit Eh, te eh, giñ giñ ga nga xam ne moom giñ moo tax mu gëm la ba tax nga mën a egg ca moom fa nga egg ca moom eh, kookee na xam ne suñu borom subhanahu wa taala rëbb na ko te it ëllëg saabu faatoo daje dajeeg suñu borom subhanahu wa taala merum suñu borom bi subhanahu wa taala lay dajal ba tax na kon ay giñ yoo xam ne bokkut ak li nga xam ne mooy li wér loolu jullit bi itam war na koo moytandi ko bu baax a baax a baax ndax giñ loo xam ne lu lu lu am la sax dañu koy tere waxuma laa giñ loo xam ne nag euh, euh, moom euh, dafa juuyoo ak li nga xam ne mooy mooy dëgg-dëgg li nga xam ne moo am moo tax mu ne yooyu juróom-ñetti mbir la yoo xam ne gémmiñ moo ko jagoo di ay bàkkaar yu màgg yoo xam ne nit ku ne war na koo moytandiku waaye nit ne war naa moytandiku tàbbi ci li nga xam ne mooy bàkkaar yooyee mu ne sahaadatu zuuri seere ay neen wa xasful moxsanaati ak ŋàññ ñu sangewu saaminatul kabairi mooy juróom ñetteeli bàkkaar ya yu màgg yooyu almustahjanaati yadu yu ñu ñaawlu ñena na ci bàkkaar yu màgg yooyu ba tey nga xam ne gémmeñ mooy ki nga xam ne moom moo koy def mooy seere ay neen seere ay neen mooy seere loo xam ne dara amu ci seere loo xam ne dara amu ci loolu mooy seere ay neen te loolu suñu borom subhanahu wa taala daf koy aaya bu baax a baax a baax mi ngi wax ci alquranul karim ne fajtanibu fajtanibu arrijsa min al awsaani wajtanibu xawla zuuri na ngeen moytandiku li nga xam ne mooy euh, lépp loo xam ne mooy arrijs Euh, ci jëm ci sobe su jëm ci ay ay ay xëram wala jaamu loo leneen loo xam ne dafa wuute ak suñu borom subhanahu wa taala waaye na ngeen moytandiku di seede ay ay neen loo xam ne ay neen la na ngeen ko moytandiku di ko seere waaye na ngeen moytandiku euh, di euh, seere ay mbir yoo xam ne dara wéru leen ci kon nit ki wala jullit bi saa bu demee ba am lu mu war a seere dafa war a doon loo xam ne am na ci xam-xam ba tax mu war koo mën a seere kon seere ay neen suñu borom subhanahu wa taala aay nañu ko waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom itam aay nañu ko ndax jële nañ ci xadiis boo xam ne abi abdurahman ibnu abi bukrata moo ko jële ci baayam mu wax ne dañoo nekkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa yonente bi ni leen xanaa duma leen xibaar bàkkaar yi nga xam ne ñoo gën a màgg ci bàkkaar yi ndax ngeen may ko moytandiku ñu ne ko axakay mu ne leen bi ca jiitu mooy bokkaale suñu borom bi subhanahu wa taala ñaareel ba ca topp mooy dogoog sa ñaari wayjur euh, ne na dafa toogan waaye dafa mujj soonu bi nga xamee ne soonu na nag ci la leen wax ne leen beneen ba nga xam ne moo bokk na ci bàkkaar yow yi nga xam ne moo gën a màgg mooy seede ay neen bi nga xamee ne wax na loolu nag ne na dafa continuer di wax loolu di ko wax di ko baamu ba ne na dañoo mujj sax euh, di ñaan yonente bi sallallahu ngir mu noppi ngir ni nga xam ne loolu ñaaw gi nga xam ne bàkkaar bi ñaaw gi nga xam ne moom la ñaaw waaye it moytandiku gi nga xam ne moom la ko ab jullit war a moytandiku nga xam ne yonente bi sallallahu ñaawlu woon na ko lool waaye it bëggoon na euh, jullit ñi doon ko moytandiku lool moo tax bi nga xamee ne egsi na ci bàkkaar boobu daf cee taxaw bu baax a baax a baax di leen ko baamul di leen ko baamul ngir ñu xam euh, solos moytu bàkkaar boobu ak màggaay gi nga xam ne moom la bàkkaar boobu màgg euh, te ñu war ko moytandiku euh, beneen ba mooy xasful muhsanaat buñ ko waxee mooy ŋàññi ñi nga xam ne dañoo sangewu ñi nga xam ne dañoo ami ami soxna sangewu buñ ko waxee mooy koo xam ne góor goo xam ne dafa am soxna wala jigéen goo xam ne dafa am borom kër kooku mooy ko sangewu kooku nag ŋàññ ko di ko tuumaal ak njaalo wala yooyu loolu lépp dafa bokk ci bàkkaar yu màgg yi nga xam ne ab jullit war na ko moytandiku ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu koy moytandikuloo ci alquran ndax yàlla moo wax ci alquran ne inna allazina yarmuuna almuhsanat alghafilat almuminat lu'inu fi dunya wal axira wa lahum azabun ñi nga xam ne ñoom ñooy ŋàññi jullit ñu jigéen ñi sangewu euh, ne na ñooñu nañ xam ne ëllëg euh, suñu borom subhanahu wa taala dina leen bugal waaye nañu xam ne ëllëg dinañ daje ak suñu borom subhanahu wa taala te mépp mbugal moo xam ne digg na leen ko ci jëf ju ñaaw jooju wala wax ju ñaaw jooju nga xam ne moom la ñuy wax ëllëg euh, dinañ ko gis waaye suñu borom subhanahu wa taala dina leen mbugal ngir lan ngir lu ñaaw loolu nga xam ne moom lañ daan jël di ko teg ci derub euh, derub li nga xam ne mooy euh, jullit ñooñu nga xam ne dañoo sangewu woon euh, te it laaluñu daray caaxaan bu boobaa loolee képp koo xam ne moom nga ko tuumaal tuumaal nga ko bàkkaar bu màgg te bu ñu gëstoo ba xam ne loolu amul itam na nga xam ne di nga ci jële merom suñu borom subhanahu wa taala waaye dinga ci jële am rëbbam te ëllëg yowmal xiyaam dina la teg mbugal mu méttee méttee métti kon loolu ay euh, bakar la yoo xam ne bi itam war naa def kem kàttanam ngir euh, moytandiku bàkkaar yooyu waaye moytandiku di tàbbi ci lépp loo xam ne moo ko mën a yóbbe ci bàkkaar yooyu kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di wax ne nañ taxawlu foofu ba euh, dellu siwaat incha allah di wax ne in uridu illa l islah mastata'tu wa ma tawfiq illa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu la mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax juddu na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a tabaxlu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg changé changer seen xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bi bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxari jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo leen ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aajo faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yaa ngi yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar Cité Port kenook Juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg.